Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima yu salaamaaleykum mbokk internet yu Setsima TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen dalalaat tey ci seen beneen émission référence tey nag référence dafa ñëw fii ci eh, Parcelles Assainies set si koo xamante ne bii bu ñu ko leen ko présenté ci kanam tuuti alors di ngeen xam ne référence la parce que itam jëmm la joo xamante ne bii il a fait beaucoup de choses donc euh, dans le développement euh, waaye laataa loolu ñu nuyu ko bu baax a baax jaar ko muy Ibrahima Diome Ibakor monsieur Diome ñu ngi lay nuyu. Ah, ok asalaamaaleykum euh, waa Setsima TV. yi uh, asalaamaaleykum uh, uh, internautes yi actuellement ñi nga xam ne ñu ngi suivre émission référence c'est avec plaisir que me recevoir leen tey di leen di remercier di leen di dalal di leen di ñaanal di ñaanal internautes yi bon ci at mi ñu dugg nii muy atum xéewal atum jàmm lépp luy musiba ak bala yàlla raxasal ñu ko dàqal ñu ko corona bi ñuy ragal yàlla yemale ko fii bon muy li atum liggéey atum jàmm ak xéewal bon ñëpp euh, gis ci seen bopp euh, yàlla faxas bopp yi bon ba ñu delluwaat ci li ñu nekkoon euh, muy du dóor waar bi amin amin amin yaa rabbil alamin alors euh, Ibrahima Diom donc bu ñu ko waxee tey mën nañu ne doomu Petite Côte la doomu Mbour Géej waaye laataa loolu moom ci boppam dañu koy laaj monsieur joom tey sa enfance sa jàng école fan la doore ak kan mooy tey Ibrahima Diom. sant yàlla en tant que jeune bon j'ai valgé entre Mbour euh, ak euh, Ndiaganiao. bon avant de euh, venir à rejoindre Dakar bon sama enfance mën naa ne euh, je l'ai passé dans le milieu rural en même temps dans le milieu urbain sama njàng nag je l'ai démarré euh, aux écoles à l'école Immaculée les sœurs frères et sœurs de Nianing Euh, bi ma démarré deux ans après j'ai rejoint quand même bon euh, ñaaw l'école primaire te nga xam ne actuellement le directeur bi nga fa nekkoon à l'époque actuellement yàlla euh, jël na ko tout récemment ñu koy ñaanal muy Ahmadou Dieye Wade yàlla na ko suuf sedde di koy jaale famiyam yëpp ko bon léegi su loolu weesoo après le primaire bon ma ci la rejoindre at bon ma ñëwee Mbour après jusqu'aux années quatre-vingt-dix avec les grèves euh, multiples ak yëpp te loolu nga xam ne avec euh, en tant que acteur des mouvements aussi euh, étudiantine qui est scolaire bon j'étais obligé de revenir euh, rejoindre Dakar quoi pour terminer mon cycle secondaire après avec l'université j'ai fait maths physique Euh, après le maths physique. Bon, il aussi beaucoup de problèmes au niveau des universités à l'époque. Bon, j'avais mon option et mon ambition, c'était le développement. Tu l'as opté, rejoindre le développement. Alors, euh, donc, on m'a dit que judo. waaw Ndiaganiao la juddoo euh, apparemment dans un village euh, bi ñuy naan Ñaamal bon actuellement plus connu sous le nom de Médine avec euh, Sëñ Mbàkke Médina Euh, village boo xam ne moom moo ko moo ko yoroon ba après par la suite euh, doomam ñoo yor ko euh, yàlla def doom bi moo ma tuddee boppam muy sëñ Ibrahima Mbacke bu ñaamar macha allah alors kon mën nañu ne Ibrahima Diom Murid Sadikh la waaye itam euh, bu ñu euh, xoolee sa parcours tey fi nga jógee nga xam ne village la euh, da nga fa jógee tey bu ñu gisee monsieur Diom di liggéey ci projet yi di bëgg dooleel village yi mu mel ni foofu nga ko jëlee parce que itam boo juddoo ci village après nga jàng am expérience wàllu projet naka nga fexe ginnaaw mat physique bi ci université naka nga fexe tey ba nekk homme de projet sa jàng après da nga ci ay privé wala naka la demee. waaw bon c'est vrai que très tôt dama am fibre fibre bi développement bon parce que apparemment euh, mën naa ne depuis depuis l'université euh, maa doon yëngu ci mbirum développement. ça veut dire que euh, j'avais déjà une vision panafricaniste bi may nekk primaire. bon loolu bon peut-être euh, am na ñoo xam ne ay maîtres lañ à l'époque ils savaient sama vision sur le panafricanisme déjà au primaire bon nekk loo xam ne je l'avais porté euh, au cœur et loolu dafa nekk loo xam ne moo doxal sama parcours parce que fépp fi ma jaar c'est que sama objectif boobu nekkoon primaire ba léegi moom moo nekk sama sacerdoce moom moo nekk euh, ma raison d'être et ma raison de vivre quoi waaw ci loolu bon bi ma ñëwee aussi euh, université j'ai vu j'ai à travailler sur le développement à, à, à concevoir des programmes de développement ci la dans les années 92 il y avait beaucoup de tensions politiques au euh, euh, ci la commencé mettre en DS benn association boo xam ne c'était quand même pour le développement économique et bon boobu bi mu ko mettre en place c'était quand même pour voir nan lañ mën a porter le développement au au Sénégal. te boobu étudiant nga. boobu étudiant la mais c'est que c'était trop en avance par rapport euh, ak ñi ma nekkaloon bon temps yooyu parce qu'ils ne connaissaient pas le développement. bon bon seulement bon toujours c'est monsieur projet nga doon dégg bon ci loolu j'ai tout fait j'ai travaillé sur la décentralisation proposé ko à des députés ak kii yu bëri ba Dieu merci niñ ko mettre en place en 96. alors euh, monsieur Diome li ma jaaxal mooy euh, math physique nga def euh, ci qui parle de math physique xam ne par exemple tey wàllu science la projet yi teel a ñëw ci sa xel. naka nga doon def ba expérience bi pour réaliser ko après da nga dem jàngi école danga dugg César wala naka la demee. bon je dirais que autodidacte moo ci ëpp. parce que bon peut-être comme li mu la wax rek bi ma nekkee xele même ci tool yi sax. Euh, su mu doon béy daa am ay calcul yi mu doon def waaw euh, j'avais très tôt des calculs bon mat yi comme ni wax rek mat yi rek dafa nekkoon tout ce que je dans la vie dem ko ci doon boole très tôt dem doon xool euh, bi may am presque dix ans la mën naa la ne très ci àll bi bon tée naa aussi nekk jeune di relever ay défis quoi waaw ci tool mu léegi nag loolu aussi maa ngi doon xalaat su ma màggee qu'est-ce que je peux faire ba lii gën a dem naat quoi mbéy mi gën a naat bon loolu nag moom ma puusoon bon may continuer ci mbir moom et chaque fois euh, aspect mu ma dem rek bon damay xool lan moo ko gën a war lan moo ko war a gën a mën a yóbbu kanam ko looloo taxoon tam bi ma ñëwee gis Sénégal tension bi bëri politique bi ma ah, ma jàngale ci qu'est-ce que c'est la révolution quest que c'est un révolutionnaire ma xam ne que léegi bon euh, su nekkee ne da nga bon euh, nekk jeune am fugg bon di wootewu révolutionnaire ça veut que da ngay aspirer à ce que nga euh, yëg euh, changer loo état maanaam sa réew day nekk benn état A nga bëgg ko changer yóbbu ko état B bu gën mu nekkoon ci loolu nag j'ai commencé à euh, exploiter à faire des recherches waaw développement nan lay demee ci monde bi di euh, euh, côtoyer les les institutions de développement pour xam ñoom ñooy ñan ak nan la ñuy liggéey ci loolu nag laa continuer de et puis je suis un passionné de lecture j'ai beaucoup euh, quand même j'ai beaucoup de lecture sur le développement nan lay demee yooyu yëpp finalement loolu moom ma emporté quoi d' accord alors euh, tey sa premier projet bi nga njëkk a teg ñu gis ne dafa am réussite totale euh, ba tey jëlee nga nekk ci njiitul si donc nekk directeur des projets euh, def lu ne ci wàllu projet alors est ce que mën nañoo ñëw am bref ci projet yi nga jot a réaliser. bon euh, c' est vrai que euh, très tôt en 96 j'ai travaillé avec euh, le, la décentralisation ba yenn yàlla def mu am mu effacé wu. parce que bon c'était pas quelque chose boo xam ne un simple citoyen mënoon na ko porter mais bon néanmoins mënoon nañ def euh, un peu euh, plaidoyer bi bu mu jàll parce que aussi les députés soo leen di côtoyer di leen di jox sa idée par A ou B ñoom dinañ essayer ni mu jàllee parce que ce sont des hommes politiques aussi qui veulent quand même faire promouvoir leurs idées euh, pour que au minimum ñu ne am nañ contribution yu ñu def c'était simplement de les approcher et de les quand même bon pousser à vraiment promouvoir la décentralisation Bon, j'ai beaucoup travaillé. Après, BIM Amé en 86, je me suis effacé. Parce que décentralisation, sont relais. Bon, surtout BIM Am, bon, peut-être, euh, ils n'ont pas très bien compris. Parce que euh, sont relais France, même avec la loi Gaston de Fer, BIM Am, bon, il y avait des dérives. Ça veut dire dérives de fonctionnement des dirigeants. c'est qu'il fallait prendre des mesures ci lañ euh, jël ay mesures yoo xam ne on décentralise mais avec aussi euh, tout en érigeant des lois euh, anti-corruption et tout ça là au Sénégal on l'a fait on a copié le modèle euh, français parce que euh, bon apparemment lu ñu mën di wax il y a deux modèles de décentralisation le modèle qui est plutôt francophone et le modèle anglophone Euh, le modèle français, euh, jusqu'à présent, il y a plus de centralisation que de décentralisation, tandis que le modèle euh, anglais, y a plus de, euh, de, de, de, décentralisation que de centralisation. Bon, donc, euh, approchez beaucoup. L'autre, tu vois que l'État toujours, quelque que soit euh, quand même avancé, ñu def moi, l'État toujours monopolise le jeu. le jeu de la gouvernance quoi. d'accord juste après décentralisation donc nga dugg ci euh, projet parce que itam gis nañu projet bu mag boo xamante ne bi c'était diggante 2013 ak 2020 euh, ñu gis ne euh, jamono boobu itam yaa ko porté woon. bon c'est c'est vrai que après bi ñu paree loolu bon en 96 dugg nañu avec l'Union pour le développement de la Petite Côte dañu lancé woon on voudrait l'émergence. ça veut dire que euh, capital euh, la transhumance capitalienne parce que gisoon nañu aussi que transhumance capitalienne day apporté lu bëri réew bon de Saint-Louis à Dakar on a vu que Dakar euh, émergé na bon donc euh, léegi peut-être la petite côte était bien placée avec ses infrastructures euh, hôtelières et tout ça là pour accueillir maintenant une capitale euh, la capitale euh, kii quoi sénégalaise léegi su defee noonu Dakar devait rester la capitale économique on a travaillé sur ça on a rencontré les cadres de la petite côte influencé leen à l'époque l'aéroport de la petite côte euh, déjà était soulevé parce que à l'époque le président Wade en tant qu'opposant il parlait de l'aéroport de Keur Massar Mais nous, on a toujours dit que cet aéroport n'existera pas, mais l'aéroport de la Petite Côte euh, sera là. Et on a eu à travailler avec euh, euh des, euh, des ans euh, euh, comme Feu qui, Ibambay, qui était le fils de Kebambay, qui était président du club de la Somone. Bon, donc on a beaucoup travaillé avec tous les cadres de la Petite Côte et quand même faire beaucoup de plaidoyer pour que l'aéroport de la Petite Côte existe. Et Dieu merci, actuellement, bon, c'est l'aéroport qui, qui, est là sur place. Bon, donc après ça, euh, euh à part ça, on a continué à faire des recherches. Bon, euh, on a vu qu'il y avait euh, deux opportunités pour développer un pays. C'était non seulement avoir une souveraineté alimentaire, et aussi euh, la gestion de l'espace par le biais de l'habitat. Ça veut dire que c'était l'habitat euh, euh, euh, social et décent. Donc c'était deux programmes qu'on avait quand même eu à écrire et à quand même proposer cela au, euh, au président Ward à l'époque. Bon, on a eu plusieurs retours de correspondance. Bon, euh, le gouvernement à l'époque, même le président Ouad, dans ses discours à la nation et tout, a eu à utiliser à euh, la synthèse de ces programmes. Mais malheureusement, bon, c'est vrai que euh, les idées n'appartiennent à personne. Quand vous émettez vos idées, ça veut dire que euh, maintenant, bon, d'autres peuvent les exploiter, mais peut-être dans la mise en œuvre, ce sont les stratégies qui, euh, qui divergent. Ça veut dire que bon, la vision qu'on avait euh, pour, euh, pour mettre en place ces programmes-là, bon, peut-être euh, ce n'était pas la même vision qu'avait le politicien qui voulait euh, euh, euh, quand même une. alors su ma su ma la déggee dëgg yow monsieur Diome da ngay teg sa projet mais saa yow tegee sa projet donc ba ñu war ko financer wala jël ko mettre ko en œuvre da ngay gis politicien bu daw sàcc ko donc utiliser ko loolu nga bëgg a wax. bon man waxuma sàcc parce que. dans soo xoolee le Cap de Africa bi ñu ko mettre en place c'est un cadre de réflexion Et que dans ce cadre de réflexion la on devait faciliter euh, quand même la conception et, la, euh, et quand euh, de projets et programmes aux États. donc, lu ñu FREC, on le fait exprès. parce que ñun l'essentiel que ñoom ñu euh, jël idée bi appliquer ko peuple bi gis ci boppam loolu ñu intéressé ñun la suite euh, suñu tur doo ko dégg fen muy muy logement sociaux yeeg yëpp les quinze mille parquets et tout ça les sites tout le programme on a tout le programme tout les document on écrit à l'État tey ñu ngi koy utiliser mais c'est que ñun ni peut-être ñun approche bi ñu bëggoon utiliser ba nga xam ne sénégalais yëpp a ci participer gis ci seen bopp bon peut-être l'État mënu ko parce que euh, y a l'aspect neutralité parce que loo xam ne réew euh, état moo koy def am na y des pour et des contre parce que su nekkee la société civile ñu xam ne faroo fenn là tu une chance que soo waxee nit ñi dégg même les plus réticents parfois bon quand même mën nañ mën nga leen convaincre ñu rejoindre la waaw ah, donc c'était ça parce que on voyait le logement social comme un outil boo xam ne ça allait permettre de combattre la corruption de de euh, préserver des valeurs des éthiques euh, républicaines ah, nga xam ne tey nit ki su amee këram léegi liggéey rek des quoi dóor mais tey tu prends un jeune qui rentre dans la fonction publique amul kër euh, mu ñëw avec ses ambitions bon des euh, très tôt nos fonctionnaires bu njëkk il y avait l'éthique républicaine mais à la longue actuellement tu vois un fonctionnaire cette éthique là n'existe plus euh, plutôt li ñu li leen di obnubiler c'est le luxe quel fonctionnaire ne veut pas un toit bien bâti quel fonctionnaire ne veut pas euh, un compte bancaire bien rempli Mais alors que si aujourd'hui, la vocation que Dieu va avoir, ça veut dire servir la nation sénégalaise, ça veut dire que là, sacrifice de like. Mais cet esprit de sacrifice-là, il n'existe plus. C'est pourquoi pays, chaque jour, nous de métier. Mais ce n'est pas le président, c'est tout le monde. Tout le monde a une part de responsabilité, du sommet au plus bas. waaw ah, parce que ku nekk actuellement li muy xool du xool lan la mën a jël réew mi mais lan la lan nan la mën a jëriñoo réew mi waaye poste bu ñu la teg tu cherches à gagner le plus pour sa servir que ñan ñoo nangoo sacrifié wu dem ñu jox la yenn yi nga avantage yi nga ne noonoo non là c'est trop waaye dëgg ci sa tànk automatiquement tu dis lii day gaañ réew mi waaw mais ñiy xalaat réew mi ñoo bariwut du président jusqu'au plus bas, euh, au, au, au, au, citoyen le plus modeste. waaw. Ah. kon da nga gis ne euh, méttiwaayu réew mi euh, du ci président kese waaye askan wi sax dañu ci am part de responsable. mais xam nga si tout le monde aspire au luxe. Hmm. est-ce que loolu état attan na ko. le train euh, tey soo xoolee le budget de l'état li ëpp fonctionnement la. liy dem ci lii war a réew mi bariwut. et puis euh, soo xoolee endettement bi am actuellement nii lu ko waral mais euh, sooy leb fayagoo lebaat fayagoo lebaat mais su yàggee état bi alors que état bi amul ay ressource léegi tey dafa am euh, un style de financement boo xam ne moom dans le monde mën nañ la lebal comme tey état soxla 1000 milliards ou cent milliards lépp mën nañ ko ko lebal mais dafa am deux types de cautionnement te garantie suivant tes ressources minières comme tey état Sénégal mën na def garantie li mu soxla garantie bi ab avec ses ressources minières muy pétrole beeg yëpp parce que tubaab yi xam nañ ne loolu am na kon donc euh, gage la ah ou bien mu nekk loo xam ne euh, euh, xaalis boo xam ne Sénégal expiré na ko am ki ko ko war a jox mais suy leb day day leb avec des conditions yoo xam ne maanaam taux bu élevé lay doon. waaw ah, parce que bailleurs aussi xaalis la ñuy wut. d' ci ñuy wax ne bu ñu la bëggee lebal dañu lay proposer waa mbirum wàllu ñaari tur yeeg leneen loo xam ne dëppoowul ak suñu diine ñaare. bon c' est que euh, dañu nekk àdduna boo xam ne maanaam ay euh, dafa bëri ay lobbying te lobbying bu ci nekk aussi day xëcc euh, maanaam ci loo xam ne intérêt am la àdduna bu jaxasoo lañ nekk waaw je crois que tey monde bi soo xoolee. on parlait de, euh, peut-être ñu bëri n'ont pas compris le président Trump lan moo ko daané parce que y avait deux tendances su nekkee euh, président euh, Obama borom ñaari tur yi ñoo ko supporté woon ñoo ko imposé ak mouvement jigéen yi nga xam ne ils sont kii euh, radical ñoo ko ñoo ko imposé mais euh, da xool Trump bi mu ñëwee dafa ne borom ñaari tur yi du exister aux États-Unis lan lañ ko njëkk a def mais par voie de presse dañ ko caricaturé def ko ay mbaam xuux yàq deram ci communication ça veut dire que c'est la presse demoon na bu amut benn organe boo xam ne nangu na ko jël pour mu communiquer mais tey yow su nekkee presse àdduna bi yëpp mbaam nañ ma wax ci man lu bon mais nit ñi loolu la gëm. gis nañ fii suñu leader yi suñu révolutionnaire yi ngi fi jóge yëpp muy lay xadafeeg ñëpp mais ku ñu mbàmm rek presse bi mbàmm ça veut dire que te amoo fi ñuy défendre nit ñi seetaan presse bi loolu la ñuy gëm surtout en Afrique dañu gaaw euh, gaaw a gëm avant euh, d'analyser euh, xool lan moo waral mbir mi est-ce que li ñuy wax dëgg la am ou pas dëgg mais rapidement nit ñi dañuy gëm et dañuy dugg ci ay débat ay kii accusation fortuite ko presse dafa am doole. presque communication moo am doole. waaw je crois que ci politique bi gis ngeen ko am na ñoo xam ne yàq nañ leen ci loo xam ne te rek rek rek waaw. nga am na politiciens yoo xam ne biñ ko nee dafa dof sénégalais yëpp dañ dof lañu koy seete waaw waaw ça veut dire que presse euh, moo am doole waaw ça veut mën na la yàq léegi ko kon donc bon donc tey euh, li may wax ci mbirum financement yi rek ça veut dire que euh, bëri na ay lobby mais alal alalu àdduna bi dafa am ni mu demee arab yi am nañ alal waaw mais ñoom bon soo xoolee maanaam euh, euh, mbirum développement développement dëgg-dëgg taxu leen jóg. lan moo leen tax a jóg ñoom. bon peut-être euh, bon pas diine parce que su nekkoon diine ñuy investir ci diine bi ci islam bi mais c'est que xam nga soo amee alal to xamoo loo koy def. parce que ñoom soo xoolee peut-être li leen gi gën kii mooy euh, le côté matériel mooy extravagant tu prends Dubaï ay nekk di construire sur la mer rek ay affaires yooyu ñoo dàqale ay château ñoo dàqale ay kii yooyu moo leen intéressé ay hôtel waaw affaire foo rek leen intéressé alors euh, pour tëj dañuy ñëw directement euh, ci euh, monsieur Diome maintenant la moo nekk ay perspectives am donc à l'avenir ci euh, projet bi nga xamante ne bi projet yi muy ngemb mooy aussi cap de si bi mu jiite. bon projet projet yooyu li mu ci mën a wax rek mooy que li nit ñi war a retenir retenir mooy que projet programme la woon soutien kii quoi maanaam sécurité kii souveraineté alimentaire. Euh, bon gouvernance et souveraineté alimentaire ça veut que tey maanaam nan lañ mën a génne ci ndóol bi bu am suñu dépendance ça veut dire que il faut ñu mën a demal suñu bopp te loolu c'est possible ça veut dire que tey euh, bon peut-être ñu ngi ñu ngi waxtaan dina nekk bu du nekk mais quand même on mettra les jalons waaw ne du ñu négandiku kenn ça veut dire que du kenn ki ñu financé suñu moyen bopp la ñuy demee te incha allah parce que am bon on travaille sur la thésaurisation. mais monsieur Diome bu la état financé wul xaalis boobu foo koy jëlee financement. exactement parce que ñu ngi ñu ngi calculer yan sommet ak yan waxtaan la ñu war a mën a def ba ñu thésauriser zakat au Sénégal suñ ko thésauriser mën na nekk de euh, lu mu bon bon ay cinquante dem une centaine de milliards mais avec ça on peut développer l'agriculture te loolu suñu suñu moyen bopp lay doon. du lu ñuy walyaani du lu ñuy leb hmm. waaw ci loolu mais confiance bi nit ñi am mooy que par exemple on pense à organiser des sommets sommet Touba Tivaouane Kaolack kii bon regardez toutes les composantes euh, de la Oumma au niveau du Sénégal ñu def ay euh, séminaire euh, yoo xam ne de partage ci euh, yenn benn yenn terme de référence yoo xam ne c'est partager c'est euh, consensuel ba nga xam ne ëllëg suñu paree ñëpp dinañ ci gis seen bopp ñoom ñoo koy diriger état bi euh, superviser ko bon et la société civile va exécuter les. ci azaka bi nga wax wala. ci aza ci azaka bi. azaka bi nga bëgg a jël def ko financement. waaw mën na nekk financement parce que tey beaucoup de sénégalais xam nañ ne war nañ joxe azaka mais ñu bëri joxewuñ ko. mais tey suñ leen poussé ba culture boobu am xaalis boobu ñu def ko ci mbéy mi def ko ndimbal pour askan bi ñëpp a ci gis seen bopp waaw. waaw te loolu ñu ngi ciy nëggandiku guide religieux yi ak euh, maanaam ñëpp mi nga xam ne borom xam-xam lañ te loolu war na mën a nekk. parce que su defee ay séminaire dans toutes les cités religieuses nga xam ne ku ci nekk joxe xalaatam ñu ànd tënk euh, tëgg téere boo xam ne. maanaam téere boobu ñun ñëpp a ci d'accord niñ koy defee ñu def collectif bi ni mu waree état supervisé fonds yi nekk en place ñu jël lépp ñu investir ko sur le monde la là je crois que dinañ mën a atteindre waaw du béykat bi du ne amatuma financement et tout mais financement bi day nekk loo xam ne sénégal Sénégalais ñoo jël seen xaalis jox béykat bi ne ko béyal wutal ko tracteur ne leen tracteur bi pour village bi béy leen rembourser ñu waaw macha allah boobaa kenn dootul soxla ñu lay jox azaka alors li ñu jagleeloon ci waxtu je pense bien que jeex na donc euh, monsieur Ibrahima Diom amoon nañu mbégte jàkkaarloog yow lan mooy doon sa kàddu gu mujj ci émission bi. bon kàddu bi bon je crois que vraiment mbégte la pour ma modeste personne ngeen pense ne je peux être une référence mais je crois que euh, ba ngeen choisir ma pour euh, qu'on puisse débattre. mais je crois que ñun jeunes yi actuellement ça veut dire que on doit chercher à mieux comprendre lan mooy développement parce que développement soo xoolee ay objectif yi ñu war a atteindre la maanaam lépp li nga xam ne mën na suqali doomu aadama mën na suqali réew rek mbaa bàyyi ko politicien rek mais day nekk loo xam ne askan bi yëpp ci mànkoo ànd euh, nasandoo euh, dóorandoo mais tant que loolu amut euh, man gëwuma ne tey euh, politicien mën na développer Sénégal muy man muy son morom ñun ñëpp ah, mën nañ doon demee ay kii responsable jox la euh, ñu jox la ab gox pour nga développer ko mais su ci askan bi jàpput gëm boppam ne ñun dañuy kii dañuy développer suñu gox la ça veut dire que du maire du maire benn maire mënta développer goxam benn président mënta développer réewam mais askan mooy jóg jël engagement am je crois que tant que askanu Sénégal yeewu ci loolu dinañ continuer di euh, rencontrer ay difficultés parce que maanaam tey soo xoolee képp koo fi jox responsabilité li muy gën a njëkk a gis mooy objectif am c'est le luxe waaw nan lay tedde nan la sama njaboot di tedde ba nga soog a xalaat nag lan lay euh, euh, askan bi nag lan lan laa leen war a mën a cër waaw te loolu defe naa ne mentalité boobu ñuy doxee ba nga xam ne tey kenn nangootul sacrifié pour le peuple réew yi am développement yëpp dans le monde dina am ñoo xam ne dañuy jaay dañu sacrifié seen bopp waaw tey suñu guide yu baax yëpp lu ñuy wax ñoom Cheikh Amadou Bamba ñoom El Hadj Malick ñoom dañu sacrifié seen bopp du du alal du bànneexu àdduna waaw ñooñu amul dunuñ ko waaw dañuy sacrifié pour génération yi ñëw mën a nekk ci jàmm ñu aussi il faut tey génération yi ñëw tant que ñi fi nekk ñu ngi concurrence alal ak euh, maanaam gën la bëgg àdduna waaw waaw gën la bëgg teraanga ça veut dire que bon donc génération yi ñëw na leer ne ñu fi fekk dara fi fekk dara bi doonu macha allah alors euh, kooku moo nekkoon monsieur Ibrahima Diom donc ci émission bi ñu seqoon nag moom mu di référence donc di émission bi nga xamante ne bi du ñu ci dalal ku dul référence donc ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax di ko féliciter euh, di ko gërëm aussi ci dalal gi mu dalal macha allah fii ci siège di gërëm sama caméraman bi ma àndaloon ci réalisation bi Ousmane Noreyni tout court. Setsima l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér te